magie moo leen di may kooru ni nga rek a koor koor jarul lii chéri damaa doon wàccu sànq. wàccu. waaw te temps yi damay mii rek. ba jàmm la bébé. xaw ma damaa bëgg après nga jëndal ma test de grossesse parce que damaa am retard. ah bon toogoo pharmacie sax ku takk jabaru ordonnance doomu pharmacie ngay am <laughs> jeeg bu bon day iñaane iñaan ba iñaane ndonoom alors positif positif alhamdulilah merci bébé xam nga ko sama yaay. Eh, eh, eh. kay toog. xew. chéri nañu xaar confirmation gynéco bi moo gën a wóor. léegi gis naa lii c'est positif. Mass ñun dañoo am suñu aada. cat dafa gaaw. cat ba sama yaay. yaay yaay tey indi la nouvelle bu neex yaay. ay eh waay labayka allahumma labayka waaye kon sama géntu biig bi damay dem. bi de mu ëmb. ku jaasin nu mu yëmbe. yaay maa def pharmacie jënd test bi xool c'est positif. positif. kon man ci maa mënul laa demoon kon demuma ci maa mën. ah man yaay. bu ëmbee nag na fi àndi góor. yaay nag yaay góor a jigéen moom yaay loolu na ko jël ko si loxo yàlla yaay isa xam yaay laa bëgg yaay nga koy toppatoo yaay di ko conseiller di ko suivre yaay. toppatoo bi weesuwul na fi àndi doom bu góor bu dee àndi na fi doom bu góor maa ko moom man maa joxe tur. mbirum tur loolu bàyyi ko ci man yaay man xool naa ko xool yaay bëgg naa ko tuddee sama xarit yi am naa ko mu koy tuddee pare yaay. yow sax dama daan wax bi may seet ki ma neex ma tudde ko ko yow da doon def examen rek bind na nga joxe bàyyil maa joxe résultat tooga rek xaar eh yabaate war na la ndax yaakaaroo woon ne dina ëmb muy yéen waa chou lu xew ah. mais du ma ñëw di ko wax affaire grossesse pour mu toppatoo la ah xool sa santé mais mu nekk fi di lijjanti ay détails. ah léegi yow loo ko wax. li ma ko wax leer na ne nag instant sa sant mooy priorité bi yow ak xale bi ngeen mujj ak jàmm. chii chéri te nga kaa mu def lu ko neex rek essayer ko comprendre instant stress bu ñu nekk nii rek doy na. taluma ay wax yu sew ak ay xëccoo. imagine demagul fenn muy wax ay waxu ngénte ay waxu doom quand même. du day xëccoo tur bi kay bàyyee ko ko. dama bàyyi kenn dama tànn sama doom waaye tànn sama doom bu dee góor wala muy jigéen xam naa ko ma koy tuddee. yaay biddew nee na nuñ ko defee yaay. ni nga ko bëggee lépp loo bëgg dañ ciy taxaw incha allah instant moom xam ñun instant lañ gën a soxla nga toppatoo na biddéew jox koy conseil nga suivre man daal teg naa ko sa loxo daal. lii de gën ci yow wàcc daanoo ci gën a gaaw. nii rek baa doom du fi judd ku xam looy mujje nag danga koy jëkke yabaate bay bëgg a yaakaar ma ba pare di ma yab waaye bu ma rey yow lii lan la nii tappale rek woote feebar fii ku ne sa bopp nga tal ayca sama palaa la kay. ayca leen bon appétit. maaleykum maa ngi fi. waaw ah. ça ah mi ngi ci biir. waaw mi ngi soxla ko. waaye yegg si leen. salaamaaleykum salaam. waaw waaw na nga def. waaw ça va bien. merci jërëjëf waay. waaw dañu ñëwoon indi le soutien pour sunu conférence bi ñu am ci koñ bi. d' accord ah non merci. ñu ñu jàmbari. ñu ñu

dóorkatu ramadaan yi yow ñi xàmme woo leen mooy gardien yi ne fii suuf kii moom laveur la waaye nag lu demul talaatay ndeer dem dimanche su fi daaw na carte bi boo ko ubbi woon am na juróomi at jànguñu ko dañ koo fot rek andi la ko. yaa nag yaay ñii ay gën nañ yaay lañu reer. Ah, ba dëgg kenn du ko eh, reer leen. reer leen ba suur. kër gi seen kër la eh. weeru koor rek julli woo jàpp julli luy sa wërsëg nga am ko ngay wër naan dañuy conférence hmm. xëy na allah ji bàyyee koy firi bàyyi ñaan xalaat naa moo koy firi magie moo leen doon may kooru biddew